Bébé, yow fone bébé yow fone dalul ci man moo tane gi ma sa géologue ñu daje xam nga ni man maa la dese ñoom dañ la rey wax yi kese. asalaamaaleykum internetu Sénégal alors tey nag ñëwuñu ci Focus Star dañoo ñëw ci beneen émission bu bees boo xam ne Qui suis la tudd émission buy promouvoir nouveau talent yi Sénégal parce que musique bi du Wally Seck du Pape Diouf du yamul ci Thione Seck wala Youssou Ndour am na ay nouveau talent yoo xam ne Sénégal fii lañ nekk di promouvoir musique bi kenn xamul leen mais ils faut de la bonne musique léegi tey nag suñu premier invité moom mooy suñu baptême de <laughs> salaamaaleykum Aïda maa ngi lay nuyu bu baax di kontaan ci euh, invitation bi di nuyu euh, internet yi sur Sénégo euh, tey moom dama kontaan quoi kontaan nekk fi ak yéen si first émission ki suis-je nekk first invité donc voilà c'est c'est un honneur donc maa ngi jóge ba dëkk Rufisque léegi di évoluer en France donc style de musique bi may def Afrofusion la L'idée de l'afrofusion, en fait, c'est euh, un mélange de musique africaine avec d'autres styles, comme euh, je peux citer le jazz, le blues, le rock, bah, la pop musique, mm-hmm. d'autres styles gospel, voilà. Donc l'idée, c'est euh, d'avoir une composition à la base africaine, donc euh, sur le plan rythmique, mm-hmm. et côté harmonisation, côté euh, mélodie, tout ça, que ça touche un peu l'Occident en quelque sorte. Ou d'autres styles de. Ou, ou, enfin, voilà quoi. D'autres régions quoi. donc du coup donc du coup euh, projet bi ma génne mu ngi tudd Afromap. Mhm. donc euh, mu jóge ci Afrofusion. te map IP voilà benn IP wu six titres. Mhm. bu ma génne le 15 décembre. donc euh, en autoproduction. EP bi euh, Afromap la tudd parce que déjà dama ko génne ci contexte crise sanitaire bi nga xamante ni activité artistique yëpp taxaw. Euh, nit ñi am last recours bi ñu am mooy internet plateforme de streaming yi ak YouTube ak yeneen. plateforme yi nga xamante ne permettre ñu mën a déglu musique donc Afromap comme si tey da nga nekkoon Google Map di xool euh, yenn région yi wala tu fais un voyage euh, dans le monde en restant chez toi par exemple donc Afromap c'est un peu dans euh, dans la même direction dafa nekk projet boo xamante ne daf lay permettre à la base une musique africaine qui te permet de voyager en fait de d'aller un peu partout déjà man euh, la musique je l'ai commencé à très bas âge donc depuis bu huit ans laay commencé di squatter yenn euh, concerts yi ouverture foyer yi yooyu noonu. d'accord Dakar ou à peu partout. voilà mais instant bi euh, afro afro map bii nii mu nekk sama première projet bu ma génne mu nekk projet bu officiel. Mhm. à côté doon naa def ay single di def taxale yenn vidéo tout ça man maa ko doon defal sama bopp. mais bii nii euh, dama décider ne franchement il faut que expérience boobu noonu yëpp ma daal di accumuler ma def ko sur quelque chose de concret quelque chose de solide. Mhm. wan euh, Sénégalais yi nga xamante ne peut-être yàgg nañ suivre sama musique a ñi nga xamante ne jotuñu xamuñu ma woon. voilà ñu découvrir ma à travers un projet solide et tout le temps les préparant pour euh, un album qui va venir dans pas longtemps. man je suis dans une famille musicienne sama papa moo nekkoon professeur d'éducation artistique donc euh, mën naa ne dama judd fekk musique sama kër léegi ci laa nekk di évoluer ndànk-ndànk di jàng instrument à côté de mon père ak sama benn frère bu bu nekk à l'extérieur aussi donc mu nekk passion quoi donc ci lu ma juddu la lu ma xam léegi euh, ma daal di def sama étude ba am sama bac daal di orienté wu en fonction de man sama activité sama passion mm-hmm. donc j'ai fait une licence en métier des arts de la culture Ensuite, bon, pareil, euh, je suis parti euh, en France et me spécialiser en technicien du son. D'accord. Et grâce à cette expérience-là, ça m'a permis de réaliser mon, mon projet AfroMap. Afro, AfroMap, 6 titres. Donc, de moyenne 6 titres parce que EP, pour dépasser 6 titres, l'album les donne. Donc, euh, on a décidé, moi et mon gars, moi, de de sortir 6 titres, comme Hamogunyu, Gaï Hamogunyu. Donc, euh, de faire doucement, évoluer doucement et comme ça te ci titre yi maa ngi évoquer thèmes yu bari comme euh, solidarité partage amour euh, di évoquer aussi yenn thèmes yoo xamante ne ça touche notre société comme premier morceau bi nekk ci EP bi mu tudd ni mu dëkkee nga xamante ne euh, benn taaw lay wax benn quotidien wu taaw ko xamante ne mooy taaw seen kër respecté wuñu ko parce que indiwul dara ci kër gi liggéeyul te bu amee yenn décision ñu war a jël ci famille bi moom il est relégué au second plan dañuy privilégié ñi nga xamante ne ñooy caat wala ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey dindi ci kër gi donc mu nekk phénomène boo xamante ne ñu koy dund bari na trop léegi ma koy ma ciy ñaaxaat nit ñi rek pour ñu bàyyi ci xel gën a tamit conserver li nga xamante ne mooy suñu valeur sociale waa comme ni ma ko waxee rek samay vécu ci société bi ak yeneen musique yi nga xamante ne moom laay déglu tey mën naa seetaan benn film mu inspiré ma une chanson wala moo lire benn livre mu inspiré ma une chanson donc comme premier morceau bi ma la wax ni mu dëkkee si souvent des gens yi nga xamante ne damay bokk ak ñoom jotaay li leen naxaar ñu partagé ko loolu euh, doon déclic bi créer euh, composition boobu noonu. mën naa wax ne artiste bu engagé nga wala boog euh, tu am na engagement mais je fais aussi de l'art pour l'art parce que des fois am na benn morceau bu ma mës a composé yoo xam te ne c'est totalement de l'onomatopée quoi lépp li ma ciy way tekkiwul dara. Mhm. mais c'était plus dans le sens de d'amener une richesse au niveau des harmonies def ay. yenn assemblage mélodique yoo xamante ne ça peut donner quelque chose quoi donc mhm. c'était plus dans la direction de création artistique voilà. Bah man bon foot de très loin en fait. ay Afrofusion bi may def dama bëgg sama musique accessible à tout le monde donc ñëpp déglu ko génération yëpp nationalité yëpp pays yëpp parce que tey yàgg nañ ko wax musique amul frontière du langue bi moo yóbbu musique parce que tey m'arrive d'écouter euh, euh, de la musique indienne te xaw ma lu ñuy way mm. wala muy déglu ay euh, chinois yu way xaw ma li ñuy woy mais seen musique dama koy fil dama koy déglu donc tey man euh, jàpp yaakaar naa ne tey ëllëg sama sama style de musique ak yi ma xamante ne maa ngi koy def àdduna bi yëpp euh, jot ci déglu ko mu permettre ma tey ma mën a dem fu nekk présenter ko. jaay musique sénégalaise à l'extérieur. c'est ça parce que tey non musique africaine en général en fait nekkul sax musique euh, sénégalaise tey su ma nee musique africaine yemuma rek di déglu ay artistes yu nekk Sénégal. mais euh, damay xool tamit euh, suñuy euh, voisins africains ñoom tamit lan la ñu proposé comme style de musique dem vers ça xool loolu nan laa koy assembler ba trouver ci man sama sama touche personnelle. pour man musique sénégalaise dafa bari richesse peut-être comme li ñuy wax xam nga. jege mais boo ñëwoon tey fan ngay rangé wu par exemple. du ma rangé wu fenn. Ah. man je suis un artiste indépendant. ñeme nga mbalax kon. ak maa ko ñeme. Hmm. justement fa laa bëggoon ñëw fa mbalax dafa nekk musique populaire donc Sénégal lañ nekk ci contexte Sénégal bi le fait que ñu bari di proposer bon du ñuy xam valeur mbalax mais tey bu ñu demee extérieur par exemple France euh, nit déglu mbalax da koy impressionné parce que c'est un style boo nga xamante ne il a l'habitude de le faire. te comme tey li ñuy dégloo musique américaine. benn Beyoncé par exemple boo xamante ne dafay woy gospel di def ay rimes ay reference tout ça mbalax tamit Sénégal am nañ benn touche au niveau de la voix boo xamante ne euh, ba day impressionné ñeneen ñi nga xamante ne yàgg nañ déglu leneen ko donc am na benn recherche boo xamante ne bu ñu ko exploité yaakaar naa ne mën na joxe daal bon man en tant que ingénieur de son waaw daf may déranger parce que tey mën na ma. xam nga ma lay déranger Wally Seck dafa bëri. non non non waxuma ne diw daf may. déranger ah Wally dama lay signaler ay artistes nga ne ma kii musique am xaw na baax na neex na. mais musique am neex na. waaw ah, baax na baax na. en fait baax na ça veut dire c'est c'est parce que tey. mais su ma la doon wax Wally lan moo lay déranger ci ci ci ci musique bi. ci musique Wally Seck. Euh, côté son. son yu ma jot a déglu ci Wally Seck amul dara lu ma ci dérangé te fa laa bëggoon ñëw parce que tey musique création artistique la donc euh, nit ku ci nekk da nga am sa direction artistique bu fekkee yow ci sa son da nga sentir sabar yi dominé wala tama bi da nga koy da nga koy mettre en avant parce que tey jii nii boo jëloon même œuvre bi jox ko peut-être benn euh, beneen artiste mbalax man wala beneen artiste boo xamante ne mbalax sa nekk univers am moom xëy na dina ko arrangé Euh, à sa manière. waaw mais dire juste que quand euh, bu ñu ko gënee xoolaat saytuwaat ko mbalax bi am na valeur boo xamante ne en fait matière première bi mu ngi fi brut bi mu ngi fi mais exploitation bi finition bi moom moo des. su amee finition boo xamante ne jaar na yoon feefu mu dem euh, dañ day am reconnaissance. alors donc le 15 décembre sorti naa sama first projet bu tudd Afrofusion donc EP boo xamante ne six titres la mu ngi disponible ci plateforme de streaming yëpp. plateforme de téléchargement légal yi donc sama tour Aliou la donc projet bi Afrofusion fépp foo leen dem sama chaîne YouTube Instagram Twitter Facebook boo leen defee Aliou Musique A L I W euh, di ngeen ko jis donc euh, voilà. man euh, duo bu amee feeling rek buñ ko sentir rek nañ koy def mais temps mu gën a nekk xale nag ba mu doon commencé door a commencé. yàgg naa di rêver di bëgg def ay duo ak euh, ay Cheikh Lo Ismaël Lo Youssou parce que bon mën naa ne euh, c'est c'est la base quoi c'est mooy classique <laughs> mais mais mais xool ba déggoo fi ma tàmbalee ah, déggoo fi ma tàmbalee déggoo fi ma tàmbalee ba ma gënee nekk gone. jëlal bas cung yooyu. waaw mais waaw fa tamit. <laughs> non yooyu tamit yu am solo la. Uh-huh. parce que loolu rêve la woon ba ma nekkee xale. mais ak ak voilà ak expérience bi tu te dis featuring boo ko filee rek sentir ko ak ku mun ci doon. parce que tey mën naa sentir benn affaire bugg ko def ak kenn fekk kooku en contrepartie moom sentiru euh, ko. donc tout dépend de musique bi fan la ñuy yóbbu création création artistique bi fan la ñuy yóbbu. mais ban duo moo lay neex boo xam ne nag kooku bu ñëwoon na la du si ok di nga fecc jour boobu. dinaa fecc jour boobu ci jeune génération. wala ci jeune mag yi comme ni nga cité sànq aussi koo xam ne daal moom wax yàlla bu la woowoon ne la kaay duyoo nag pàkkaat ma woon ne ma kaay ñu duyoo non non ma waay ma woon ne ma kaay ñu duyoo du ma <laughs> bañ. mais c'est duo de <laughs> en fait dafa benn condition rek bu mu àndal. mooy li ñuy def ñu sentir que mu doon création bu riche parce que tey su fekkee dama euh, composer on va dire benn salsa boo xamante ne euh, tey benn euh, bluesman sentir ko duma ko mën a def ak moom. Mhm. xam nga fi may waxee. donc man damay dem rek et je suis très ouvert aux rencontres tey artiste mu mun ni rencontré naa jàmm sant ak yow ñu waxtaan xool. naka nañuy mën a ensemble développer suñu univers musical donc def ay parce que fusion man fusion moo ma intéressé donc tey kii def ngooyaan bu ñëwee fekk moom may def afro fusion sûrement am na touche ngooyaan boobu noonu la nga xamante ne mën nañ ko exploiter mhm. tey rappeurs yi moom du ma wax seen wax parce que avant may génne sama projet dama yoroon studio d'enregistrement di enregistrer ay rappeurs donc des il m'arrive de de rapper. ah bind ay couplet tout ça loolu yëpp dama koy def. donc danga polyvalent quoi. dama xaw a polyvalent voilà noonu la demee. donc ah, tey par taasu. Hmm, su ko laajee ma def ko. <laughs> Euh, waaw di euh, déjà rek di delluwaat ci euh, remerciement yi. Mhm. franchement kontaan ci nekk first numéro émission bi. te dama ñëw 15 jours laa amoon vacances gàtt. pour ñëw présenter Sénégalais projet EP bi nga xam ne moom laa def. mais mais yaa bu baax bu baax Sénégal moom. ñamante leen ci ma dem kay fépp ma dem Sénégal mooy base bi. donc du coup euh, ñëw naa profité naa ci séjour bi euh, réaliser benn clip boo xamante ne bientôt dina disponible. Mhm. donc euh, le sant yàlla alhamdulilah te di ñaax clip bi mu tudd. clip bi ba mooy quatrième morceau EP bi Fone la tudd donc c' est une chanson d' moom laa réalisé euh, week-end ñu génn donc xam naa d'ici quelques mois dina disponible après ma partage ko ak <laughs> hello man jëm naa lu woo bébé. Got blocked in my all social networks, yow li now honey man ak yow la woon kenn raxuñu ba may wax ne du oho ba mag yow ñu mës a taxali ko ay bés ngi jàll may seetlu nga commencé jël ses distance boobu léegi may cogité audité sama xel qu'est-ce qui se passe ba du fàtte sa ani fa waral ma xaani nga génn ci man wala ñàkk la toppatoo bébé ti ji sa xol bi nga xool kan moo koy leeral du kenn ci ñoom lay bëgg loolu leer na c'est sur mesure xam nga maanaam wali nekkul spring love that's me and you bébé yow fone bébé yow fone delul ci man moo tane ngi message woloog nu daje xam nga ni man maa dese ñoom dañ la rek waxi kese man full love la lay yekkal me and you that for real bébé Bebe yofone delul ci man moo tane gi message wu loog ñu daje xam nga ni man la dese ñoom dañ la rey waxi kese man full love laa lay yekkal me and you that for real fa weesa xool ñoom la ñu gën a man góor dëgg da lay ak noo mën a mel I don't give a damn li nga am just give me a little sa xol ma tëgg di la feexal dara du ko dindi amul docteur bu koy diri ñaar abadan you are the one and only one who killing me softly honey I kii ji sa xol bi nga xool kan moo koy leeral du kenn ci ñoom lay bëgg loolu leer na sa sur mesure xam nga mën a wali neexul spring love that's me and you bébé yow fone bébé yow fone dalul ci man moo tane gi message wu lock ñu daje xam nga ni man maa la ñoom dañ la rek waxi kese man full love la lay yekkal me and you that for real Yeah. Nice. Merci. <laughs>